dalee na jàmm ñoo ànd bu Sédhiou dina leen jagle la ci atum 2023 lu toll ci 400 milliards maanaam ñeenti téeméeri milliards la président Macky a kaay gi de la point xëy du niki démb sët diwaanu Sédhiou wax réalisation yi nga xam ne def na ko Sédhiou ak li nga xam ne moom la fa na ma def fa diggante 2023 ak 2025 lu jëm ci wàllum route yi maanaam infrastructure yi transport dem beeg dikk bi président Macky lu jëm ci wàllum wér yaram gi nga xam ne def na ko ci diwaanu Sédhiou ak lu soxal programme xëy ndaw ñi lu jëm ci wàllum bourse familiale président Macky Sall wax na li mu ci def ci diwaanu Sédhiou wax na tamit lu soxal maanaam yeesalaat aéroport bu Sédhiou yéen a kaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu 400 yi njiitu di président ko dugalaat lu toll ci 18 projet maanaam projet yoo xam ne moom la président Macky bëgg a ci atum 2023 jàpp 2025 njiitu réew mi di président Macky Sall journal bi nee na dafa bëgg a soppar ñi te nag Sédhiou na ci région yi nga xam ne ñoo gën a ndóol ci Sénégal kaay gi di réew mi di ñu xibaar naan ñu pont bu daan nañu ko inauguré tuddi nañ ko Famara a kaay gi di le quotidien yor yor a xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew di président Macky Sall deful tournée économique waaye nag tàggu de tour la président Macky Sall yi def en tout cas li amba de Sall le quotidien yor yor nee na Macky Sall démb maanaam dig na waa Sédhiou ba xolam sedd bëri ay promesse yoo xam ne Macky Sall ko waa Sédhiou jamono ji kay waa Sédhiou ñoo ngi réewe waat yéen kaay gi di réew mi ko di jenqi duñu xibaar ñu bu ñu waxante dëgg njiitu réew mi di président Macky Sall yi nga xam ne digge na ko ci diwaanu Sédhiou jamono ji nag électorat bi nga xam ne Ousmane Sonko teg na ko loxo loole la président Macky Sall bëgg a fuqar ndax région bu Sédhiou élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné moo moo gagné département bu Sonko moo fa teg tànk loolee moo tax Macky Sall di clin d'œil ñi nga xam ne ñooy yeneen région yi te nag Macky li mu bëgg a wax mooy képp koo xam ne votel nga ko comme ni ko Sédhiou votelee maanaam yow moom dinañu la jàppale bu baax a baax waaye ne fépp foo xam ne dafa perte Macky Sall bëgg a wax ne yéen a œil pour œil dent pour dent bi nee na président Macky Sall jamono ji nag li tax mu dugal Sédhiou lu toll ci quatre cent milliards dafa bëgg a wax yeneen région yi ci daal li bëgg ñii nga xamante ni ñooy waa Ziguinchor ak waa Bignona ñu bàyyi nag opposition bi bàyyi Ousmane Sonko daal koy fekk see bu ko defee ñoom ñu mën a am li Sédhiou ama yéen a kaay gi nee na Macky Sall ma ngi sarme waa Sédhiou yéen a kaay gi di la turbina ñu xëy fekk fa Bougane Gueye Dany moom nag nee na tournée économique bii nga xam ne président Macky Sall ma koy def ci diwaanu Sédhiou maanaam ay tappale ki caaxaan bëgg a naaxa yi maanaam waa a naxa askanu Sénégal mën lu ñu bëgg te loolee du dëgg Macky Sall jamono ji askan wi bàyyi nañu ko Macky Sall dafa jël ay nit daal leen di faye waaye nag bëgg nag jàll ci lu jëm ci wàllum troisième candidature te loolee du ñu ko ko may yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xibaar naan ñu société civile bi ñoom ñoo ngi woo acteur politique yi ak état bu nag ñu toog waxtaan maanaam daal di dialogue ñu mën a organiser élection yoo xam ne yu apaisé lay yoo xam ne dafay ànd kook dala yéen kaay gi di bés bi nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature président gauche bi jamono ji ñoom dañoo noppi ci mbir mi moo xam AFP waxaguñu lenn ci lu jëm ci troisième candidature ma Sall ak ñi nga xam ne ñooy waa parti socialiste ba PIT LD AJ ñoom ñëpp dañoo noppi yéen kaay gi di réew mi ko di jee nee na ambassadeur bu États-Unis bi nekk ci réewum Sénégal wax na ci lu jëm ci troisième candidature Macky Sall nee na institution yi maanaam ñoom ñooy décider waaye nag askanu Sénégal ñoom ñoo am sañ-saña maanaam tànn seeni njiita ñoom ñi nga xam ne nag ay partenaire lañ seen rôle mooy gunge askanu Sénégal ci lu jëm ci wàllum processus ak institution démocratique yi yéen kaay gi di bés bi société civile bi ñoom ñoo ngi alerté ci lu jëm ci wàllum parrainage bi ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kaay gi de la Tribune Bougane Gueye Dany nee na ñi nga xam ne ñooy waa États-Unis ak waa Union ñoom ni ñuy ñaawloo coup d'état militaire yi nga xam ne mooy am ci déndu Afrique noonee tamit la ñu waxee ak président Macky Sall ngir nag mu bañ a jëm ci wàllum ñetteelu candidature yéen kaay gi nee gi bokk yaakaar am na ko ci élection locale yi ak ci élection législative yi ci diwaanu Thiès Idrissa Seck daf cee raxasu ba setti wecce nee na yoonam nekku si ngañam nekku ci lépp Benno Bokk Yaakaar ñoo ko waral maanaam defet boobu Idrissa Seck waa Benno Bokk Yaakaar la ko tuumal yéene kaay gi di source xëy duñu xibaar naan ñu maître El Hadj mi nga xam ne ordre des avocats dañoo jëloon ay daan lal ko ci ndodd dama déglu nañu ñu ko daal di daan na ne mooy avocat bu Ousmane Sonko moo fa doon défendre am maître El Hadj Diouf mi nga xam ne mooy avocat bu Adji Sarr ndax journal na maître Ciré Clédor Ly Mauritanie la nekkoon amul avion waaye oto la jël Mauritanie ba Sénégal ngir défendre maître El Hadj ndax nee na dafa daw Sénégal ndax dañu ko bëggoon faata ndax nee na dañu koy wax di ko menacer de mort jamono ji mu jëlee audio yi jox ko doyen des juges ba léegi amul jàmm loole moo tax MC Niass daw dem ci diwaanu Amérique te nee na dañu koo seetaana kaay gi di direct news xëy di ñu xibaar naan ñu Turquie ak Syrie ginnaaw ba suuf si yëngatoo bi ñu ko xayma lu ëpp cinquante mille personnes faatu nañu fa maanaam lu ëpp juróom fukki junni nit ñoo faatoogun ci Syrie ak ci Turquie yéen kaay gi di sunu lamb xëy di ñu xibaar na ñu rëg-rëg sàccee sa ñoom ñaar ji la ñuy amal open de presse waaye nag yéen kaay gi nee na CNG convoqué na leen CNG